Hey, Jibi. Bang, ça va? Recule ma sac. C'est Il est 17h, on va démarrer. Donc, euh... Les Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui. Nous sommes réunis pour euh, nous prononcer sur euh, quelques aspects de la vie politique nationale. Je commencerai mon propos par euh, dénoncer regretter et condamner fermement la barbarie de la gendarmerie nationale sous commandement du général Moussa Fall, habitué à ces comportements, sur les populations civiles de Taïbandiaï hier soir lors de mon passage dans cette localité dans le cadre du Demekoutou. Monsieur Moussa Fall, sous commandement d'Antoine Diom, est habitué des faits. Sa conception de la gendarmerie se résume à la brutalité extrême contre les civils. Tout prétexte est bon pour se livrer à des exactions. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre Et ces agissements um sont des agissements criminels. Hier, beaucoup de jeunes de Taïba se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures très graves. Des jeunes désarmés qui, contrairement d'ailleurs aux manifestations qui peuvent exister à Dakar, non seulement n'ont pas manifesté, mais se limitaient à accueillir un leader politique, mais nous étions dans des contrées qui ne sont pas habituées au contact avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que, malgré la supériorité numérique, ces jeunes ne sont pas battus contre ces gendarmes. Mais quand vous entendez un commandant donner des instructions, des ordres, en disant, même s'ils se retirent, même s'ils se retirent, tirez sur eux, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. C'est des agissements criminels. Et c'est la gendarmerie sous les ordres du général Moussa Fall. Je souhaite prompt rétablissement à tous ces jeunes, tout en réitérant au président Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur, à son général et à son euh, chef de la police qu'aucune intimidation ne pourra passer. Il s'y essaie depuis très longtemps, mais s'il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas des gens intimidables, c'est qu'il est loin d'être au niveau d'intelligence que nous pensions. Au-delà, ces ajustements vont appeler à des réactions des populations. Ça, c'est inévitable. J'y reviendrai certainement. Nous vous avons convié pour parler euh, principalement de deux séries de problèmes. Le premier est lié aux farces judiciaires en cours avec un enchaînement inédit que jamais on a vu au Sénégal et peut-être nulle part dans un pays qui se réclame démocratique. Et la seconde série est liée à ce débat, s'il en sur le dialogue national. Pour le premier volet, évidemment, mon propos se transformera en un diagnostic, en un audit. Quelqu'un a parlé d'audit hier, mais beaucoup plus à une mise à nu d'un comportement inadmissible de ce qu'il est convenu d'appeler la justice sénégalaise ou un petit pan de la justice sénégalaise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'affaire ne sort pas d'une dizaine de magistrats. Le procureur, Abdou Karim Diop, le procureur général, M. Ibrahim Bahoum, de manière générale le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Macky Sall, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Macky Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la Justice qui lui-même obéit au doigt à au président de la République. Donc le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, Je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Macky Sall qui les a immédiatement, personnellement arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas les, toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Macky Sall. La stratégie, c'est quoi? c'est d'arrêter en masse. Et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder le plus tard, au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. Et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire Ou alors, comme El Malik Ndiaye ici présent, on leur euh, met un bracelet électronique. Et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebus, qui viennent de passer leur corité là-bas, là où Macky Sall, son fils Amadou Sall, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis et sa femme Marem Faisal, toute leur famille ont passé tranquillement la Korité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Macky Sall, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment docile, suffisamment couché pour accepter de finir la sale besogne en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps. Il y a à deux mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile. Et il y a à une semaine, il a procédé encore à des mouvements. parce qu'il est à la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut, principalement pour Ousmane Sonko, mais également pour tous ces détenus politiques dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des mots les plus profonds de la société sénégalaise. Pas l'ensemble de la justice. J'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières, de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés, et de sources sûres, puisque ça vient de magistrats, simplement parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à deux ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de diffamation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accordé la liberté provisoire à des militants de PASTEF de Kermassar. Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kédou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'assesseur, ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du, serait lié au fait que le président du tribunal le président de la Cour d'appel n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ces quelques postes au niveau des parquets, au niveau des cabinets d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risque de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice jusqu'à présent est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis quatre ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise. comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi. pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, J'avais été convoqué alors que je bénéficiais de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué alors que la la constitution, comme la loi organique, sur l'Assemblée nationale disent qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné euh, sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placé en garde en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Serigne Bassirou Gueye a établi un réquisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément, alors que le réquisitoire visait X. une seconde grande violation de mes droits. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon immunité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas complète puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi a dit qu'on ne peut pas faire une commission pour lever l'immunité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition opposition-pouvoir. Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le mars. Et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant six jours à la section de recherche. Et d'autres procédures ont été ouvertes, notamment pour troubles à l'ordre public, mais également appel à l'insurrection, euh, participation à une manifestation non autorisée. N'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le mars et le 8 mars je ne serai pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie un mandat de comparution, ce qui est illégal. Et il m'entend hors présence de mes avocats conseils auquel le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau, il a fallu tout le tintamarre que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge daigne ouvrir, mais après m'avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque, du temps de Ablaïwad, un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants Et pire encore, il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. extrême. À l'issue de cela, monsieur le juge d'instruction de l'époque, sous la pression de la rue, parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat. Et c'était le réquisitoire d'ailleurs du procureur de la République. C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il a changé d'option pour me mettre sous contrôle judiciaire. Lequel, lequel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais de manière illégale, Jusqu'à présent, on me refuse mon passeport, on me refuse tout déplacement en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de deux ans, j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire, sans suite. Pire encore, deux ou trois demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager Et souvent, le juge n'a même pas daigné répondre. La dernière demande qui a été déposée sur la table du juge Maham Diallo, il n'a même pas daigné répondre. Alors que la loi lui fait obligation de répondre à ces demandes. Ensuite, toujours dans la violation, l'instruction catastrophique du dossier par le juge Maham Diallo. qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Macky Sall. Peut-être c'est une histoire de parenté, peut-être c'est une histoire d'argent, peut-être c'est une histoire de pression. Ce qui est constant, c'est que lui, Maham Diallo, sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier. Il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier, puisqu'il s'était prononcé un an et demi à l'avant sur ce dossier en publiant un article à charge contre moi. Il ne pouvait plus être présenté les garanties minimales d'impartialité pour instruire ce dossier. M. Maham Diallo a fait fi de tous les éléments qui montraient que c'est un complot, une farce et un mensonge récupéré par l'État du Sénégal. Un certificat médical que tous les Sénégalais ont vu. Un gynécologue qui témoigne et qui émet plus qu'un doute et qui est menacé tous les jours et qui, avec des éléments à l'appui, en preuve, montre que il y a eu tentative de corruption sur sa personne par le juge l'avocat Sow et M. Mamour Diallo. De vos prélèvements qui disparaissent, perdus dans la nature. Il a fallu que le juge, deux ans plus tard presque, mette la pression, fasse un forcing pour obtenir un avis du centre. Ça veut dire que ça n'a respecté aucune procédure. Une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur Bassirou Gueye dans la manipulation du PV. Des audios présentés par le dénommé M. Signas et confirmés par la plaignante qui, devant le juge, dit que c'est ma voix, effectivement, c'est moi qui l'ai dit, mais je plaisantais. Des témoignages qui impliquent Macky directement. Tout ça est dans les PV, figure PV dans le dossier. les témoignages des autres personnes qui étaient présentes, qui sont toutes, tous à décharge. Monsieur Mahmoud Diallo, qui, devant le juge, lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui. Autant d'éléments. Et malgré tout, M. Maham a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on agite pour lequel on retient un de vos collègues, monsieur les journalistes, concernant monsieur Frédéric Nappel, qui est un acolyte et un complice de monsieur Maham Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est monsieur Maham Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité, qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. qui, dans cet audio, affirme même intervenir dans le cadre d'un prévenu qui aujourd'hui est en détention, qui a été arrêté pour trafic de faux billets pour plus d'un milliard, et qu'il dit qu'il intervient pour le compte de monsieur Maham Diallo pour que ce prévenu-là soit traité autrement. Allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le butin. Et dans cet audio, ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien SEMGA préparait un coup d'État pour le 33 avril passé et que c'est lui qui a empêché ce coup d'État et qui en a parlé à M. Macky C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, fréquentent le bureau du doyen des juges et servent de relais entre lui et autre chose. Et dans cet audio, ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Napel, contre M. Babacar Touré de Théoulo et M. Ousmane Sonko. Que Babacar Touré sera jugé au mois de juin, il sera condamné à 25 millions et 6 mois, et au mois d'août, il sera condamné à 500 millions et un Que c'est ces engagements qui lui ont été la Justice et le ministre de la mafia d'État que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le registre de la violation de mes droits, le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison, mais tout mon quartier. J'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Kergourgi, qui sont aujourd'hui les principales victimes de M. Macky Sall. À chaque convocation, même à chaque réunion, c'est tout cité Kergourgi qui est barricadé, gazé, jusque dans les structures de santé. Ma famille qui est empêchée d'aller à l'école, d'aller travailler, sans aucune base juridique, des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. La brutalité physique contre ma personne. Le monde entier a assisté au bris de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février. Le 8 février, si je ne c'est le 8 février le 16 février, au bris la vitre de ma voiture, avec une violence inouïe, parce que ces tessons de bouteille auraient pu euh, me causer des blessures, soit à l'œil, soit à la gorge, que des agents de l'agent, de l'État, puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux. et l'extraire de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu dans une démocratie. Et tout le monde a assisté à cela. Et si ça se limitait à ça, mais il n'y a aucune occasion où au moins quatre ou cinq ou six des véhicules qui m'accompagnent ne sont, ne soient saccagés par ces forces de l'ordre, qui se comportent comme des bandits, qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication. Toujours dans ce registre, le traitement fait à mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Tous ceux qui sont proches de Sonko sont des hommes à abattre pour Macky Sall. presque, il y a deux ou trois ou quatre de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau. Ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je n'ai pas appris d'eux. Aucun d'eux ne m'en a, a parlé directement. Mais j'ai eu l'information que Maître Ousseinou Fall, Maître Abdinar, euh, euh, Maître Babacar Ndiaye, Maître Ablaïtal, etc. Maître Clédor Cirelli, quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuites de la part du barreau. Ce même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau. Avec l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat. Et le barreau ne veut pas pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursis, etc. Alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat. C'est les textes du barreau. Je ne l'ai pas inventé. Le drame avec Macky c'est qu'il ne laisse plus aucun segment. Vous avez vu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger, Maître Juan Branco. un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre cueilli mini mani militari à l'aéroport après un voyage de plusieurs heures avec des gaillards armés jusqu'aux dents pour être rapatrié directement chez lui. Quel risque et quel danger présentait ce frêle monsieur, j'allais dire, même pour, pour le Sénégal? Absolument rien. Même notre avocat, maître Hervé, Guy Hervé Arkam du Burkina, s'est fait convoquer par le bâtonnier pour être euh, copieusement euh, sermonné. Parce que simplement, dans des procédures assez tendues, où chaque avocat défend son client, il a une posture ferme. Et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre. Me permettrait de saluer, de remercier, de féliciter tous ces avocats. Très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime. Ils sont plus d'une trentaine, aucun d'eux ne me réclame rémunération. Ils le font pour le principe. Ils le font pour la vérité. Ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants. Même à mes soignants, médecins, infirmiers, personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique, qui n'a fait que m'accueillir, me poser trois ou quatre questions. Mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose. Qui ne s'est limité qu'à faire ça, aujourd'hui, elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise. Je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était. On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal Docteur Nian, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie. dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi à la cité Gourgourgi. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Sissé, tous les autres, docteur Awandoy, simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko. la traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toute voix discordante. Aujourd'hui, nous avons 355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadiloutal, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASSEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle les Niddof, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe Est-ce que ça, ça, ça, ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis -vis de ce que Macky est en train de faire Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui, rejette, qui, rejette, qui rejetait le pourvoir que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel. Car pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement irrecevable, le président de la Chambre prononce l'irrecevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrecevabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universitaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça, c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant, ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité dans, avec laquelle les affaires sont enroulées. On n'a jamais vu la cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est arrivé à terme. La loi dit que j'ai droit à un mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin, de ce mois Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toute sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans deux pays, dont la France, puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sécurité urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tout, tous été convoqués pour leur dire est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse. Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces, ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy plus phényléthanone, savez, les non scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanol. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité, une tox, toxicité, to, toxicité. Deux points, intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétate, acétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. Qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aiguë du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspiré ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Vous euh, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. au moment où nous aspergeait ce, produit. Ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la Bible et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti Qui peut utiliser un gaz anti Qui dispose de ces produits toxiques ici Vous que ça court les rues et que le, le citoyen lambda peut l'avoir Quand il, se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou à l'arrêt de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marissagna était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose, ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous avons démarré nos procédures, le juge qui s'appropria du dossier pourra aller écrire au laboratoire ou se présenter au laboratoire, il trouvera tous les éléments, il peut faire les contre qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, j'ai pas dit meurtre, parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une, véhicule, fermée, l'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats... Aujourd'hui, les actes à poser, et nous les poserons Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé, effectivement. Je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus approfondi. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Macky Sall responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Et je demanderai à tous mes proches, politiquement, familialement, et toutes sortes de, de, de se donner les moyens de rendre tous les cours qu'on nous a si ça continue comme ça. Je l'avais dit, c'est ça sens du Gatsa-Gatsa. Nous ne pouvons dans un pays où Macky Sall pense lui, son fils, sa femme ont plus droit à la sécurité, à la vie paisible que tous les autres. Je suis père J'ai des, enfants. J'ai droit à ce minimum. Et depuis des semaines et des mois, tout le Sénégal assiste à cette persécution de Macky Sall, prolongée par Antoine Diop, Ismaël Madior Fall, le général Fall, M. Yak et tous ceux qui exécutent. Plus maintenant, quelques magistrats qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon état je ne baisserai jamais les bras. Ce combat, nous le continuer. Je continuerai bientôt. je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés cela, c'est un sacerdoce. Les délits. Je vous ai parlé de, des de mes droits. Mais à côté, il y Cette même justice qui s'acharne contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes. Jamais. Jamais. ma radiation, en Ensuite, nous avons le cas de notre sœur Maria Massaya, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'au mois je vous la justice sénégalaise refuse de connaître le traité de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mahmoud que j'ai déposée le mai sur la table du procureur Abdou Karim Diop, c'est que plainte est sur sa table. l'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que Sonko a dit est Et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du doyen des juges d'instruction, le 20 août 2019, et il a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégalais, député de surcroît en ce moment. Donc, ayant totalement le droit de dénoncer des faits de corruption, des faits de détournement des deniers publics ou les faits d'escroquerie, plus particulièrement, comme l'a dit le rapport de l'OFNA. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord, auprès du procureur général près la cour d'appel contre Maître Gabisso, puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges juridictionnels. J'ai déposé également contre les sieurs Mamour Diallo Mbaye de monsieur Mbaye là Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adissa j'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis des éléments audio des actes des relevés téléphoniques jusqu'à présent le juge refuse le procureur les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'IGAGE et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Seri Bassirou avec des faits très La justice refuse de traiter cela. J'ai déposé le janvier 2023 toujours au niveau de, euh, du parquet général Elas Diouf Avant de passer à ça, je rappelle que si le procureur général, M. Ousmane a été relevé, c'est parce qu'il avait décidé de donner suite à ma plainte contre Seigne Bassiroubé. Immédiatement, Macky l'a relevé de ses fonctions. Contre M. Elas Diouf également, le 13 janvier 2023. Contre M. Abdou Karim Diop et Ibrahim Bako. Plainte déposée le 12 avril auprès du parquet général de la Cour pour avoir le dossier pendant le délai La justice ne donne pas suite. La justice refuse de connaître du dossier des 14 martyrs assassinés lors des manifestations de 2021. La justice refuse de connaître des dossiers des deux personnes qui ont été assassinées en juin notamment Idrissa Goudiaby et Diatta à Ziguinchor et Bignona. La justice refuse de connaître de tous nos recours devant la Cour suprême pour la violation de nos libertés. Comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à justice, à lui reconnaître une légitimité? C'est pourquoi je demande solennellement à chacun de prendre ses responsabilités désormais. Que ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande, qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps, qui ont trahi leur serment et qui, pour des raisons strictement matérielles ou matérialistes, ont décidé de servir un homme et non pas le droit nous ferons face. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal. La justice nous a fait trop de mal. Trop de mal. Il n'y a plus d'injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi ou une institution pour faire du banditisme. Ce à quoi nous sommes en d'assister, c'est du banditisme de personnes. Et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir. Chacun prendra ses responsabilités. C'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance civique vis-à-vis -vis de cette justice. Parce que quand une justice est injuste, nous n'avons plus l'obligation de, de, la respecter à fortiori, d'accepter de jouer son jeu. Le contenu, vous le saurez. Mais à partir de maintenant, nous avons décidé d'opter pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste. C'était le premier point de mon allocution. Le second est lié au dialogue. On nous parle de dialogue, de dialogue, de dialogue. Mais celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Que les institutions marchent bien. Que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer Pourquoi dialoguer Car le tienne, on lui accorde cela. Mais la première question que je pose, que sont devenues les conclusions des précédents dialogues Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y de 2016 qui s'était conclu le 28 mai Et Macky Sall avait décrété cette date, journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile, ceux qui s'empressent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là nous avaient dit ça en 2019. et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu deux mois seulement après une vive polémique, vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum, le référendum constitutionnel du mars Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de sept ans à cinq ans et 62 pour cent des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de sept ans à cinq ans Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel et revenu dire le Conseil constitutionnel a dit non je ne dois pas euh, diminuer mon mandat des Sénégalais vous disent nous sommes d'accord il faut diminuer vous revenez voir le Conseil constitutionnel qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit non, non, non. Les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à, à, à, saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, C'est le dialogue qui est passé, qui est, déroulé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à, à cause de, de l'épidémie, la pandémie du, Covid, dirigé par M. Famara Ibrahim Sagna, mais dont le pan le plus important était dirigé par feu général Niang. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque? Un, la suppression du parrainage, à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la Sénat, désaisir le ministre de créer une autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser est en les résultats de ces discussions, c'était quoi Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il croit que les Sénégalais sont complètement amnésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes euh, démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui, ont, qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour, conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage. Et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la Haute Cour de justice de la CDAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire. La CDAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne, des États. L'Union européenne a fait un rapport Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ses observations. Pour dire ce qui ne marche pas. Et ce qu'elle pense mériter euh, d'être changé. Pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de à 2021 pour nous sortir le rapport Et deuxième point, sur le bulletin unique. C'est les résultats, je, vous entends, vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez qu'on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle, mais à ce jour, Aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le, le fichier, il a une longueur sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il, il, il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections. Les représentants du pouvoir ont opposé une catégorie aux de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition. Le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre, alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de, de, de citer l'intervalle article 80, pas jusqu'à quel article, et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison. Sur des bases farfelues, ça, ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et sur la pacification de l'espace politique le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi et ceci nonobstant la rédaction sur proposition du général Niang d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30 et malgré les recommandations des experts auditeurs celles des experts évaluateurs allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birem Souley Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 L30, qui auraient réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Ben Bokoyakar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on nous parle de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale, si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump, dans tous les cas, sera candidat, sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Ah sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il a combien de de, de procédure contre lui actuellement. Il y a qu'ici qu'on dit, si Biram Soleil dit que j'ai, on est au mois de Ramadan, j'ai surpris dans un restaurant, Ousmane Sonko porte plainte, on dit Biram Soleil ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est quoi ça Et Macky Sall, avec Ismaël Magnor Fan, vient inscrire ça dans notre code 2017. Et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour avoir tamponner un champ sans, sans le faire attention, vous ne serez pas candidat à, à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'un milliard. Plus d'un milliard Avec un milliard, combien de salles de classe on peut construire Combien de postes de santé on peut construire Ils prennent un milliard pour faire ce dialogue. Moi, nous, on avait dit qu'on n'y va pas sait que c'est une mascarade. À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour Euh, la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu Qu'est-ce qui a été réellement appliqué C'est deux choses. Et ça, c'était des, des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a trois même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des équipes locaux, les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tentamar, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tentamar. C'est pour obtenir ça. Si je veux dialoguer avec vous reconnaissez d'abord qu'il y a un problème là où il n'y a pas un problème on n'a pas besoin de dialoguer deuxièmement envoyez-moi des pour que je sache de quoi il est question troisièmement mais faisons l'évaluation des dialogues passés s'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là c'est pas la peine de dialoguer on va demander que ce soit que ça fasse l'objet d'application c'est tout mais on des gens pour faire du et parce que Macky Sall a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui la question préjudicielle fondamentale Macky ne doit pas être candidat une troisième fois. Comment peut-on dialoguer sans, sans poser cette question préjudicielle le problème c'est que Macky Sall a ses objectifs mais il pense que pour faire pour avoir ce qu'il veut il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun à certains parce que certains hommes politiques leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019, je fais partie des cinq candidats qui avaient obtenu leur, parrain, leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie, j'ai écrit pour leur dire je propose que nous les quatre candidats de l'opposition nous boycottions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Macky sera seul à l'élection, il sera obligé de revenir en arrière. Des gens sont, ont sorti message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit Sonko a peur d'aller aux élections. Nous n'avons nous pas de problème de parrainage, je le dis ici par la grâce de Dieu. lors des dernières élections il y a une liste qui avait été rejetée il lui il leur manquait 6000 parrainages c'est nous qui leur avons donné 6000 parrains pour qu'ils puissent y aller c'est nous qui leur avons donné 6000 parrains parce que une partie de nos députés était sur leur liste si on n'avait pas fait aujourd'hui nos députés de Mbacké ou de Pikine ou d'Italie ou je ne sais où ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale nous on n'a pas de problème mais malgré tout je suis contre le parrainage parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats on est 300 et quelques partis politiques si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique mais le fichier ne fait pas ça on ne pourra pas le faire oui il faut trouver des moyens une méthode pour réguler également parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats mais pas des méthodes aussi injustes Mais Macky Sall se dit, par, dans l'opposition, il y en a qui, sont obnubilés par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je, je, fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens y travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Sur et Quand il s'agit maintenant de Pastef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir tas de dossiers judiciaires pour lui dire, boo ñëwul dialogue sa sa yaay aye. Moi, je parle de moi. Mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. c'est une question de dignité et d'honneur il n'a rien compris parce que lui il fonctionne comme ça il pense que tout le monde est comme ça tout ce qu'il est en train de faire c'était pour avoir une monnaie d'échange en se disant que ouais si s'ils viennent je, je, je libère quelques prisonniers je libère les prisonniers je, je dis aux gens levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire il n'a rien compris nous ne fonctionne pas comme ça nous ne sommes pas à ce niveau et j'ose espérer que nos partenaires politiques le F24 en particulier je crois que la position sera claire de toute façon le Yewwi Askan Wi la société civile tous ceux qui se battent pour des principes ne vont pas accepter cette tentative de d'avilissement de, de, de l'engagement politique je te tiens ici fais ceci je te donne ça laisse ça ne fonctionne pas comme ça e non l'appel au dialogue actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, je devais le résumer. Du côté de Macky Sall, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le passé. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Macky Sall, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé, nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Sur la base de la vérité, d'un combat annoncé sur l'intérêt national, sur le patriotisme. Mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde. Mais même si nous voyons personne, nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire miroiter des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Macky aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans et aspirer à diriger le pays. Pour le dire, je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant deux mandats. sur 17 millions de Sénégalais, ya n'y en aura pas peut-être 3 de leur vivant qui pourront être président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir accompagné. Je veux partir dans les meilleures conditions, continuer à vivre ma vie correctement, parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Demandez au président du Niger, demandez à Gary Rawlings, demandez au président du Ghana, demandez, demandez. Je ne parle pas de l'étranger. C'est tout ce que à di mois de la fin de son mandat, ce pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes. J'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire, parce qu'il ne peut pas gagner ce combat. Dans tous les cas, il va la perdre. Mieux vaut partir dans la dignité, dans la paix. Ici, il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit. Moi, j'ai l'habitude de dire, tout ce qu'on m'a fait, moi, Et tout, ce, tout le monde sait qu'on m'a fait beaucoup de choses. Tout ce qui a été dirigé contre ma personne, je n'en retiens rien. Ce qui relève du bien commun, ça ne relève pas de ma responsabilité. Mais je n'instrumenterai jamais la justice, je laisserai la justice faire son travail correctement. Et c'est pourquoi également je lance un appel à toutes les forces vives regroupées au sein du F24, de notre coalition, à tous les Sénégalais, à tous ces en encore debout dans leur domaine, qu'ils soient magistrats, FDS, syndicats, religieux, activistes. Je lance un appel aux ouvriers, aux artisans, aux doomu aux transporteurs, aux acteurs de la pêche, aux éleveurs, aux enseignants. À vous, la jeunesse sénégalaise. À vous, surtout, la jeunesse sénégalaise. Je vous lance un appel. pour que nous ne rations pas encore ce virage, pour que nous soyons debout pour ce pays, pour que nous soyons prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour sauver notre pays de la cupidité, de la boulimie, de l'amour inconsidéré pour le pouvoir. Cela relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous tous Sénégalais. Et je crois pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour réussir ce pari. Je vous remercie. Левандова. li ma bëgg a wax eh, li ma wax léegi ci nasaraan dinaa ko tënk ci kàllaama Kocc Barma maa ngi dooree sama wax ci naqarluwaat li nga xam ne xew na démb fële ci Taïba Taïba Ndiaye nga xam ne Sénégal yëpp gis nañu alkaati yi ñëw dal ci kaw ndaw Taïba Ndiaye ba gaañ ci ñu bëree bëree bëri su ma leen waroon photo yi ne nii nga xam ne seen bal yooyu ñu yor moom lañ leen tiire ñii ci tànk ñii ci conc bi ñii ci biir bi ñu gaañu gaañ yu métti ñu ci bari ci ñoom tey ñu ngi hôpital Tivaouane defe naa am na ñu ñu rawale Thiès am na ñit ñu ci jàpp juróom-ñett te lu ko waral defuñu dara. Ousmane Sonko doon def tournée am jaar Taïba Ndiaye ñu da leen di siyaare général Moussa Fall yónnee fa ab colonel ak commandant bi ñu ñëw yor seeni ngànnaay di tiire ci kaw waa dëkk ci ñoo xam ne defuñu dara lu bon ñaaw lii mooy nguuru ci Sall lii mooy gis-gisu général Moussa Fall ci lan mooy sécurité gis nga njàmbaar nekkul ci ñu dénk la ngànnaay parce que ci réew dañ ne kenn rek lañu jox mu am sañ-sañu jaay nit ñi doole mooy ki nga xam ne dafay dox ci turu état moo tax ñu ne ko yow am nga droit yow ngànnaay ñun ñii ñoo cotiser jënd suñu ngànnaay jox ko ngànnaay googu du njàmbarte nga dem fekk ay sénégalais yoo xam ne yoruñu ngànnaay ni yow entraîné wu ñu defuñu dara nga nga leen di jaay doole bu ko defee ñu xëy ne on les a maté loolu du jàmbaar bu doon ay samba mooy dugg nañ ci dëkk bi ñu dal seen kaw ñun ñëpp ay tàccu mais jox la gànnaay nga wëlbati ko ci sa population di ko ci jëfandikoo loolu trahison la tudd loolu rafetul moo tax ku ci yaakaar ni jàmbaar nga wala ñu waa APR leen jay naan woy félicitation à nos FDS yaa ngi nag sa bopp de bañ lay recruter bañ lay forme bañ lay jox ngànnaay dal ci kaw sénégalais yi daje ci ëtt di waxtaan taxuloon lii mooy nguuru Macky Sall waaye fi muy mujjee narut a baax ndax li may wax toujours ndaw lépp mi ngi dépendre ci seen détermination waaye Sénégal amul benn réew boo xam ne rawatina ak Sénégal am na matuwaay yoo xam ne bu askan bi jógee taxaw ne déet mën nañ ko dégg amut yi ñu def yépp ay défilé 4 avril di wane ay drone ak ay nangam-nangam c' pour gagner la bataille psychologique c' est pour xoqatal ba kenn dootul ñeme waaye jógu Sénégal jógu sénégalais 65 pour cent de jeunes de population bi jógu sénégalais yi xajul ci Macky Sall xajul ci Moussa Fall xajul ci jeune euh, yàgg moo tax bu leen dara ragal loo léeg-léeg dafa bokk sa bëgg sa réew bu réew mi demee ba toll fenn. nga jóg taxawal réew mi te foofu la ñu toll jamono ji ñaareel bi maa ngi waxtaan maa ngi wax ci lu jëm ci justice senegal Sénégal mooy attekaay yi may wax ni li nara a réew mi yàlla ñu ci yàlla musal li nara indi andi fitna ci réew mi mu nga jógee ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat yoo xam ne li taxoon ñu teg leen foofu li taxoon ñu waat ñoom ne loolu la loolu la ñuy jëfee fàtte nañ ko bu yàgg teg nañ ko fële nekk nag ay Baye Fallou Macky Sall bu leen nee tëjal ñu tëj bu leen nee bàyyil ñu bàyyi réew bu justice ba sooxee rek réew mu sooxee na lépp mën na sooxe ba mu des justice justice boobu nag yéen gis ngeen Macky Sall lim ci nekkee fi ne nii. weer wu nekk wala ñaari nekk mu def consultation à domicile changer ay juge parce que day tànn ay nit am lu mu bëgg ci ñoom dem ba ci biir amu ko mu gaaw a soppi leen la ci gën a fës nag ci li muy bëgg ci ay juge te amu ko mu mer mooy fexe leen ba condamné leen na Ousmane Sonko ci peine boo xam ne dootul mën a nekk candidat la ci des mooy ñooñu Ousmane Sonko yi jàpp leen ci ñu bëri def leen mandat dépôt pour que ëllëg ma am poñ bu ma jàpp bu ma ko jàppee justice boobu nag ñun daf ñoo yàgg lool damaa bëgg a fàttali Sénégalais yi ndax fàttali day jëriñ boroom xel bi ma commencé dund naa man ba 2016 musuma am affaire ak justice jàng toppatoo sama yaram toppatoo sama diine dem liggéeyi kenn maa xam ci dara. 2016 laa commencé jëflante ak justice te mu ngi méngoo bi ma duggee ci politique ci laa commencé jëflante ak justice 2016 ba léegi lu ne justice teg na ko sama ndott pour bëgg maa lor ak bëgg maa gàllankoor te tegu ko ci dëgg nag ma di ma leen ci yenn ma fàttali leen ni daaw jéeg bi ñuy commencé seen complot bi woo nañ ma ne ma naa dem uy ji section de recherche boobu jamono dama amoon sama malaanu kiiraay yoon ne kenn mënul woo député bu am malaanu kiiraay wala nga jàpp ko lu dul rek teggi nañ malaan boobu ñu teg ci dara juge bi nga xam ne moo fi newoon d'instruction daal di yónnee assemblée dañu teggi sama malaanu kiiraay te jamono joo xam ne procureur bi nga xam ne mooy yor dossier bi tudd ma ci dossier bi moom x la wax mooy ku ñu xamagul assemblée nationale ci base boobu mu teggi sama mbalaanu kiiraay te ba mu koy teggi commission bi ko waroon def méngoowul ak charte assemblée nationale bu ñu jógee foofu ñu woolu ma le trois mars 2021 ma jóg di dem tribunal ñu attaqué ma fii ci rond point Jet ci rond point Stel jàpp ma yóbbu ma section de recherche téye ma fa juróom-benni fan yoo xam ne kenn ci Sénégal xamuloon ci yenn anam laa bu dul woon taxawaayu askanu Sénégal kon tey jii ma toog fii di wax ak yéen maa nga rëbës loolu tax li ñu bëgg a def nii mënuñu leen bàyyi ñu def ko xam ngeen ndax lan loo xam ne fukki bakkan ak ñeent rot na ci ngir bañ injustice bañ tappale ak bañ jaay doole ñu teg ci ñaari weer Macky Sall ne fu ma tegoon dossier bi fa laa koy delloo si wéyale ko comme dara amul ñun suñu seetaanee loolu duñu ñu gor parce que xale yi nga xam ne seen bakkan rot na ci dafay mel dañ leen trahir ak li xew ci senegal yépp ci jamono jooju te weesuwul benn groupe nit bu ndaw nous sommes 17 millions de Sénégalais groupe bu ndaw a ndaw a ndaw ne ñoom dinañu def lu leen neex ci réew mi ñu jàpp ma foofu forcé may affaire yoo xam ne wax naa ko léegi ci nasaraan ba keroog le 8 bañ may yóbbu ma déedéet avant le 8 le 5 defe naa biñ may yóbbu ci juge bi samay avocat dañoo bañ ñu ñëw teewee te yoon dafa ne kenn ku nekk am nga droit avocat te juge bi amul droit déglu la te sa avocat toogul yéen ñëpp gis ngeen bés boobu avocat yi dañoo taxaw ci buntu juge bi di dóor ci bunt bi di ko fëgg pour ne ko ubbil parce que dañu am droit dugg lu kenn mës a gis ñu jógee ci loolu ñu ne def nañ ma contrôle judiciaire ñaari at ak lu tegu nee nañ Ousmane Sonko amul droit tukki amul droit dem faju ji wala su amee mbokk ci bitim réew wala comme maire la amul droit dox ay njëriñu maire yëpp comme maire yëpp ni ñu koy defee lépp ñu xañ ma ko lépp ñaari at ak lu ci tegu li ci may gën a yéeme saa su ma bindee ne leen damaa war a génn fii ñaata nit ñoo nekk contrôle judiciaire ña ngay dem di ñëw. am na maire bu leen ko wax fii nee na depuis 11 ans maa ngi contrôle judiciaire te maa ngi tukki tey ci suba rek la ma yónnee message ne ma maa ngi doog a ñibbisi maire nag Ousmane Sonko la ñu ne amul droit dox wala mu génn réew mi te saa su ma bindee ne leen damaa bëgg a génn tontu sax duñ ma ko def maa xam jàll du sax tontu te yoon dafa ne su ma bindee dafa ma war a tontu ne ma dinaa ko def wala du ko def ñu dellu ci. Maham jàlloo ni mu instruction bu bon bu ñaaw bi mu instruire dossier bi dossier boo xam ne certificat médical ñoo na taxaw ne leer nañu Sénégal yëpp gis ko gynécologue bi nga xam ne moo yor affaire bi ñëw ne man gëmuma lii yàgg naa liggéey am naa vingt trois ans de de métier bu ma gisee dinaa xam lu am lu amul di amut teg ci ne ñoo ngi koy xoqatal di ko menacer toj nañu otoom daj nañu këram teg si ne Gabiso ak Mamour Diallo ñëw nañ di ko proposer xaalis bu bëri pour rek mu soppi PV loolu rek jeexaloon na dossier bi su ñu nekkoon ci réew bu jaar yoon loolu rek teg nañ dossier bi fële ñu jógee ci loolu ñu ne ah ay prélèvement la ñu defoon prélèvement yi réer la juge bi bi mu ñëwee fekk ko fi prélèvement serré amul mu dem bind euh, kii bi mu dem bind ñi nga xam ne centre bi nga xam ne moom la nañ ñëw moo def affaire bi def ci pression boo xam ne pour ñu bindal ko li mu bëgg a dégg mu téye ko ne léegi dugal naa ko ci dossier bi ñu am enquête interne gendarmerie boo xam ne ñu ngi ko téye ñun maa ko jox juge bi loxoog loxo ci enquête bi ñu gis ni Serigne Bassirou Gueye PV bu njëkk bi da ko manipuler dugal ci ay photo yu bon changer ci ay paragraphe rien pour mun charger ba loolu tam jeexaloon na dossier bi dans un pays normal moo tax ma déposé woon plainte contre moom ñu toog dégg ay ojo yu génn ki nga xam ne moom ne ne moom lañu ñu siif moo ñëw taxaw ne musut am sequma sax dara ak moom juge woo ko ne ko lii sa baat la wala su baat mu ne sama baat la waaye dama doon caaxaan dama doon kaf yooyu yëpp am fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñ ko doon topp fii mun naa gudd malgré tout Omar Maham Diallo ne man Macky Sall nee na ma naa renvoyer dossier bi il faut ma renvoyer dossier bi loolu moo ci am may fàttali ni dossier yi créé di ko créé biñ ci mujjee génne jàpp nañ seen benn mbokk journaliste Babacar Touré ci lan nee nañu benn waaye bi ñuy wax Frédéric Napel nga xam ne am na ay condamnation moom à à la prison ferme condamné nañ ko à prison ferme tey moom mooy seexu Maham Diallo mooy ànd ak Maham Diallo yor naa fu muy waxee ne moom Maham Diallo moo ko jëlee Guinée Bissau ndax biñ ko nee songal dossier Ousmane Sonko dafa ne dañ ko ne dañ la jox cinq éléments GIGN ak cinq éléments BIP mu leen su ngeen ma joxoon cinquante sax doyuma il faut ngeen andil ma Frédéric Nappel ñu dem jëli ko Guinée Bissau mu ñëw nee bi mu ñëwee. kooku moo ko ne kii nga xam ne moom moo ne dañ ko siif dee ko gungeel li ma ko yóbbul parce que dafa am problème sécurité ci koo xam ne am na condamnation ba tey ñu ne nekkatul alkaati moom mu ne nekk na alkaati ba léegi ci boobu li ma yor ma ne la ma ngay wax ne di toppatoo am dossier boo xam ne ku doon luubal xaalis la di di raxas ay xaalis lu mat un milliard ñu ci tegu ñu jàpp ko mu dem di ko toppatoo ne Omar maa xam Diallo moo ko yónni te suñ leen jàppalee bu ñu nee salaamaaleykum mu waxuma la sama kër waaye sama koñ bi yëpp lay tëj Sénégalais di ko gis sama doom du mën a dem école sama jabar mënul génn liggéey man su ma dem boutique sax mënuma faa dem sama mbokk bu ñëw ñu ne ko doo ñëw léeg mu def ko ñaari fan ñetti fan tëj noonu sama koñ di sànni ay grenade dëkkandoo yi lu ne ñu koy daj ma leen di jéggalu ñoom ñëpp di leen baal loolu mu koy def ci loo xam ne amul benn décision de justice nee na man saa yi ma convoqué nit ñi dañuy génn di ma gunge waaye waaye Sénégal Macky Sall bi ñu ko fi convoqué jamono Ablaye Wade nit ñi gungewuñu ko muy daw sens interdit naan ma ngay dem uyu ci est-ce que Ablaye Wade da koo dóoroon wala da koo tëjoon. yéen ñëpp gis ngeen ni ñuy dalee sama kaw àdduna yëpp a gisandoo ay alkaati yu yónni ñoo fekk ma sama biir oto toj oto bi jur boobu mënoon nañ ma gaañ-gaañ bu métti ndax xottu butéel yi dal na sama kaw mënoon a dugg sama bët mënoon a dagg sama baat loolu lan moo ko gën a garaaw ci violation des droits nga ñëwaat ñii ànd ak man sax di ay àttekat di ay avocat façon toroxal bu ne ñu ngi leen koy teg ma leen di gërëm leen sant seen taxawaay ndax bari nañu macha allah te amu ci kenn ci ñoom koo xam ne fayeku na kenn gëm-gëm bëgg dëgg moo tax ñu topp ñu ñu may jàppale waaye gis ngeen ni ñu def ci suñu tubaab boobu nga xam ne dafa ne jëpp ñu dugalaat ko ci avion ne ko jibbi suñu mbokk burkinabé boobu nga xam ne woo nañ ko di ko menacer parce que bés bi ñu bëggoon forcer procès bi dañ koy téye li avocat yëpp la def li avocat yëpp def la def mooy taper sur la table du fi amee gis ngeen li bëri ci samay avocaté am nañu ay procédure ci baro bi tentative d'intimidation parce que kenn warul am sañ-sañu défendre Ousmane Sonko dans ce pays gis ngeen nit ñi nga xam ne sax dañ may faj natt bu bu ñu leen teg docteur yeeg sage-femme yeeg nangam nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise lañ ma wax nga xam ne deful dara lu ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd noo sant ñaataat nga am est-ce que am nga ay antécédent diabète nangam nangam mu bind foofu la yem tey ñu takkal ko bracelet électronique lu kenn mësut a gis gis ngeen it suñuy militant niñ leen singale ci biir réew mi jamono ji may wax tembe am nañu ñetti téeméer ak ak juróom fukk ak juróom ci ay militant Pastef yoo xam ne Macky Sall ak leen teg loxo ba pare ne ma da ñëw ñu négocier ci dara lu dul dëgg nag ku bind sax sa xalaat ci Facebook mu ñëw jàpp la gis ngeen ni euh, ni ñuy gaawantoo ci dossier yi yow nee nga dem nga première instance le trent juge wax na li muy wax juge boobu d'accord ma ak àtteem ah. ma profité wax ko d'accord ma ak àtteem d'abord agressé nañ ma feebar naa tëdd naa samay avocat ñëw ànd ay certificat médicaux mu ne du ko jël loolu pour lan ñaareel bi. li mu def mooy li tubaab bi wax couper la poire deux ah ñee xam naa ni trois mois lañu bëgg pour waa ji bañ a mën a nekk euh, candidat du ma leen jox trois mois waaye nag il faut ma sexal leen dara man gëw ma ni noonu la ñuy àttee sooy àttee waa ji defee condamné ko bu deful bàyyi ko yàlla xam na ni defuma kon def condamnation naan deux cent millions depuis quand la ñu mus a gis diffamation ñuy daan ni deux cent millions fii Sénégal fan lañ ko mës a gisee ñoom ñu naan ay juge bu Pastef la nangam nangam man de xaw ma ko musuma koo gis njort naa nag ni juge bu sérieux peut-être dossier bi diisoon ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d'accord nañ ci jugement bi de gis nga man du ma ne les choses à une question de éligibilité na nekk candidat ñu bëri bi ñu leen leen lii rek dañ alhamdulilah tant nekk na candidat rek ñi naan man mun naa fay deux cent millions déedéet fukki dërëm duma ko fay waaj bu yóbboo mu toog foofu diggante kon d'accord ma jugement bi et je le dis et c'est samay avocat dugal nañu li ñu war a dugal ñoomin ci àjjuma bi faas ñu ne première dossier ba ñu ne aarool nañ ko pour le 16 ci loo xam ne am na ñoo xam ne depuis ñetti at ñeenti at ñi ngi chambre criminelle di xaar wowuñu leen ñu ne coûte que coûte tey faw ñu woo faw ñu woo Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ni dossiers yi nu mu gën a sakkane dina am benn boo nañ ci am lu ñu bëgg bu dee nag Sénégal yi nangul nañu loolu Macky Sall man li ma dal yépp Sénégal bëgg Sénégal ma dal man li ma dal yépp bëgg Sénégal amul lenn loo xam ne ci man la te yàlla xam na ni Sénégal jaral na ma lu ne waaye nag day am fu muy toll askanu senegal ñoom seen bopp ñoo war a xam ni bu la yàlla joree joxee dara nga am yaakaar ni lii mun na soppi sama ëllëg yow yaa ko war a jëkk sàmmal sa bopp lu ko may rek dañuy wax Cheikh Anta di wax Thomas Sankara di wax keneen keneen Macky Sall ci tànk yooyu la nekk beneen bi nga xam ne am na dama waxoon ko Sénégalais mooy le 16 bi ñu ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey coow li bëri woon na lool waaye man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo noyyi biir di daw ci saasa man xamoon naa dañ ma doon bëgg a man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu du laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne kuñ ko sotti mën nga dee ci saasa loolu jeexal na wax ji leneen li ñuy wax yépp waaw fu mu jëlee produit bi est-ce que dañoo def serré normalement kan moo yóbbu yére beeg nangam amul solo ndax yére ba fa ma nekk ci laboratoire ma nga fa ba léegi saa suñu commencé une procédure judiciaire ku bëgg a dem foofu soo bëggee def expert contre expertise wala loo bëgg di nga fa fekk yére ndax yére bi fii yépp la sotteeku woon ak ci mbagg bi donc affaire bi des na fa mu nga ko bëri sans compter li nekkoon ci li daal di tisoon ci maître Clédor Ciré yi donc ñun am nañu suñu échantillon tey moo fàttaliku li ma waxaat ñi ma bëggoon rey jàpp nañ suñu benn xale bu ñuy wax yargas yi nga xam ne bëgg na ma bëgg yem ku ma gis may dem aéroport moom ngay gis mu ne sama gannaaw ku ma gis may daw léeg-léeg moom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem jàpp ko naan moom moo doon essayé rey waa moom moom moo gën a yomb ci rey ma que ki mu jàpp kon bi mbir mi di am heureusement filmé nañu vidéo yaa ngi fi ñu téye biir oto bi man maa fa newoon Guy Marius Sagna Zak euh, bi doon dawal ak ndatu nattu mbooj mi newoon ci gannaaw maître Clédor li benn instant la ñëw di ubbi pour xëcc mu tombeek soo génnee ñooñu ñi waroon oto bi yëpp alkaati yi boobu dàq nañ ñëpp a ñu sori vidéo yaa ngi fi te produit bi tam nee nañu produit bi lu alkaati yi di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xeex ak nit kon kay loolu leer na produit boobu soo demoon ci marché yi doo ko fi am soo ko commandé woon dañ lay jël si ñoom rek ko mun a yor kon ma wax ni maa ngi confirmé nii dañ ma doon essayer faagaagal te liñ ci war a def ñu ngi koy def ndax avocat yi tey pare nañu document bi ñu war a commencé liggéey walla bi ñu war a déposer fi ñuy déposer te lii yëpp nag dafa am lu mu jur lu bari wax naa ko fii ci nasaraan. bi loolu amee ba léegi man du ma ku ma xam-xam ni man du ma jooytu man du ma daw di seeti ay kilifa naan leen wax leen ci wala jàpp leen ci man dama gëm yàlla lu am ma dégg ko noonu la ma yàlla bindee kon su ma demee ba wax xam leen ni lu am la bi mbir mi amee ba léegi am na lu mu yàq ci sama santé man xam naa ko ñu ngi forcé rek di dox. te dinañ continuer dox nag ba garab gi yegg fi ñu war a yegg parce que suñu engagement la ci kàttanu yàlla à analyse yi am na ay erreur yu ñu def yoo xam ne la ca feeñ ci euh, wàllu cerveau médecin bi dafa bind ne ma il faut nga génn dem foo xam ne seen xarale ci wàllu paj egg na foo xam ne dinañ mën a gën a xóotal analyse yi parce que xam ñu ndax lu dangereux wala lu dangereux waaye waruloon nekk fi mu nekk nii loolu moom lu wóor may wax sénégalais yi nag ni ñun dañoo jël engagement parce que dañoo bëgg réew mi dañoo jàpp ni li ñuy dugal àjjana ëllëg coono gi ñu doon daj ngir suñu réew la ñun loolu la ñu gëm ñoo ngi góorgóorlu ci lépp lu yàlla santaane waaye jàpp nañ peut-être yàlla li ñuy gën a rusé mooy la nga doon daj ngir sa askan baax moo tax dara mënuñoo delloo gannaaw ñoom su doon dañoo yem rek ci di ma lor ñu ne waaw baax na ba léegi waaye man nu ñu munee ubbil ma dossier yi dul jeex ab sa ndax sax bu romboon fii ne Sonko ma xeelu ñu ubbi dossier ba pare man su ma déposé plainte duñ ko traité maa ngi fàttaliku depuis 2016 sama radiation bi ma Macky Sall di dàq fonction publique te tegu ko fenn ñu bañ ne du ma ànd ak samay avocat ma saisir cour suprême mu bañ dàq ko 2018 ñu faat suñu jigéen boobu Mariama Sané ba tey ba saaf justice tegu ci benn acte bu ñu mën a ne lii la 20 août 2000 4 mai 2018 ma toog ba gis lu garaaw garaaw ci alalu réew mi 94 milliards yoo xam ne dañ ko doon foo ma jël sama responsabilité en tant que citoyen waaye njël sama responsabilité tam en tant que député daal di bind justice heureusement bindaale OFNAC OFNAC génn na rapport am ba ne Ousmane Sonko li mu wax yëpp dëgg la te dama bëgg ngeen ubbi ay poursuite contre x y z ba tey jii ma wax ak yéen procureur bii yor làmmiñam di wax naan suba day wax ci cocktail ak xaw ma lan bañ na ne du laal loolu 94 milliards bu ñuy tudd. ma jëlaat même dossier bi ne procureur bu ko traité le 20 août 2019 ma yóbbu ko ci doyen des mu ne ma ah li nga wax de du ma ne amul de waaye nag yow yaa ko war a dénoncé soo romboon léegi kër jàmbur gis ab sàcc bu tëb di sàcc yow amoo droit ne wub sàcce yi loolu la loolu la procureur wax kii juge doyen des juges ma déposé le 5 janvier 2023 plainte contre Gabisso maa ngi ko déposé procureur général près la cour d'appel parce que ñoom foofu nga leen mën a déposé plainte ci complot bi mu bokk ba tey ba sant dara ma déposé ko groupe ñi doon comploté yépp Mamour Diallo ñi mu àndal ak yépp janvier 2023 ba tey ba sant kenn tudd ko Serigne Bassirou Gueye bi nga xam ne moo dem modifier rapport bi muy lu garaaw ci liggéey magistrat ma dem IGAJ ak cour suprême déposé ko ko ba léegi dara bi ko procureur Ousmane Diagne commencé bu ko traité la ko faa jëlee yóbbu ko feneen ma déposé une plainte contre maître El Hadj ci ay wax yu ñaaw ay saaga ak yeneen ak yeneen def ko ci bâtonnier def ko ci euh, euh, parquet général ba tey jii traité wuñu dossier boobu Ibrahima Abdou Karim procureur ak Ibrahima Bakhoum bi nga xam ni yoon may na ma un mois ñoom sama un mois jeexul ñu enrôlé dossier bi ma déposé plainte contre auprès du parquet général euh, procureur général de la cour suprême le 12 avril ba léegi waxuñu ci ñu rey suñuy ndaw fukk ak ñeent au mois de mars 2021 nguur gi ne woon day ubbi enquête ba tey ji enquête ñu defuñu dara juin 2022 ñu reyal ñu ñaari nit mars 2023 ñu reyal ñu kenn ba léegi gis ne na yoonam newu ci kon lii lépp nag bu dajee nga boole koog li ma njëkk a wax man dama jàpp ni li ma waroon def pour wane ni respecté naa suñu justice def naa ko waaye saa su ne li ma justice fayee mooy respecté wu ma fii léegi Macky Sall ak leen naan fexe leen ba faagaay la ma ko nañ ko def moo tax ma ne nag jot na ku nekk jël responsabilité man ku ma respecté wul du ma la respecté te bis ni ci tey. dinaa door campagne de désobéissance civique par rapport ak justice bi mooy nanguluma ko cër gi mu jox boppam ku nekk na jël responsabilité man lu ma ci góobee gar ko parce que nag dafa am fu mbiri di yem waaye nag li ma bëgg a kenn ku ne mooy ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow nga mucc ci ndax nga sa bopp ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ci lu dul dëgg ñu garanti na nañ la protéger armée yëpp a ngi sa gannaaw mën nga tëdd nelaw nañ la jox alal nañ la jox lii ndax nga sa bopp de bu ñu bëggee réew mi am jàmm nañ ko mayante man damaa yor jaboot ni ñépp li ma daj ci ñaari at yi néew na Sénégal boo xam sénégalais boo xam bu ñu ko tegoon ci kawam du du du du du nax saa yàlla waaye ma nangu ko parce que li ma gëm moo tax. mais nag loo gis am na limite te foofu lañ ci toll ñaareel bi nga xam ne bëgg naa ko wax mooy li ñu woowee dialogue politique mooy waxtaan bi nga xam ne nee nañu Macky Sall woote na ko la ma wax du sori mooy Macky Sall moom ci boppam moo ne réew mi mu ngi dox problème amu fi détenu politique amu fi institution yaa ngi dox waaw réew mu ni mel lu fi jar dialogue réew mi ni mel kay alhamdulilah rek macha allah tabarakallah waaye gis ma lu fi jar jar waaye ñu nangul ko lool parce que ñun jàmm lañu bëgg ci réew mi ñun dañu gëm ni fii léegi fukki weer mu soobee yàlla réew mi tegu suñu loxo te ku bëgg réew tegu sa loxo da ngay ñaan boo koy jot nga jot ko ci jàmm ak dal ak tey parce que sa xam-xam lu mu leer leer leer sa xalaat lu mu leer lu mu baax baax baax. say programme bu mu baax baax boo jotee ci réew fekk réew ma tas na ba noppi defe naa mandat bi yëpp yaa ngi xool nooy def ba defaraat li yàqu woon waaye doo tal ay développement moo tax ñu ne nañ ko ko nangul waaye nag ñun kenn duñu booleeg sénégalais parce que day def loo xam ne xam nga senegale dafa émotif bu ñu nee ah waa ji nee na woon a gars rek ah waaye ndeysaan waa dem leen waxtaan xam nga waxtaan xam nga lii bu ko defee ku ne man dew ma rek ah kii moom nitu ay la gis nga waxtaan bu dee sincérité moo ko la bu dee yéene gi sell la bu dee yéene gi sell la bu dee naxe mbaay taxu koo jóg waxtaan boobu day yomb ñépp a koy bëgg ba ca njëkk mooy naka la ñuy demee waxtaan te li Sénégalais yépp di xaar te muy yoon di ko xaar ci Macky Sall moom àdduwu ci Sénégalais li ñuy xaar ci Macky Sall mooy mu ñëw ne leen maa ngi leen di gërëm di leen sant defal ngeen ma loo xam ne mënuma koo fay kenn ndax nekk président la république ci génération di nga gis génération lëm kenn moo ci am chance nekk ci président la république ngeen may ma ko benn yoon mayaat ma ko beneen yoon malgré samay wax waxeet malgré jaay doole yi malgré résultat yu néew yi malgré chômage bi malgré ndóol bi malgré malgré ngeen mayaat ma beneen te constitution bi ne kenn mënul toftal lu weesu ñaari mandat kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu soobee yàlla février 2024 sama mandat jeex ma organiser élection ci ni mu gën rafete yemale ñépp sénégalais seet ku leen doy ñu tànn ko ma dem continuer sama dund tranquillement ndax nag président de la république nag binduñu ko ci jëw nit ne da nga koy dund laa yow mi dinde te waxuma sax démocratie euh, euh, européenne yooyu mais fii Afrique barki dem la Tanja walla kii euh, Niger la pare ñaareelu mandat joxe ga gana moom dañ koo mujj miin teel ak keneen keroog rek ñuy dégg Adama Barrow naan bu pare naa ci samandaa bu jeexee lii lii lay defi moom élection am des na mais dafa teel a wax Gambien yi loolu la di xaar ci Macky Sall bu ko defee nag tey bu ko defoon Sénégalais ne ko monsieur le président ak lu mu mënoon def dinañ ne comme fexe na ba lii jeex ci jàmm nañ ko rusee loolu nit ñi doxal dix mois yi jàmm am li mu am li ko des ci ay santé mu yeggali ko su ko mënee def li mu war a def dem yoonam lii nag suñ ci waxul te du lu ñuy régler ji ci biir dialogue ba parce que dialogue bi piège la moo ne ci biir mais loo xam ne la moom digganteem ak Sénégalais yëpp la mu war koo wax tey ensuite ñaareel bi mooy woote woon na fi dialogue 2016 bu ngeen fàttali ko ñu jóge woon ci élection ci référendum bi 2016 bu leen fàtte ni référendum bi la ne woon ñaari mandat lay def bu ko bu ñu ko mayee deuxième mandat du def beneen moo ko waxoon fii ñëpp dégg ko vidéo yaa ngi fi kaset yaa ngi fi moo ko waxoon waaye bañ ci génnee bokk na ci poñ yi nga xam ne mi ngi woon ci référendum bi mooy dafa bëgg a wàññi mandat am jële ko ci juróom-ñaari at ko ci juróomi at Sénégalais yi voté à 62 pour cent téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñaar ne da de d'accord lañu nga wàññi sa mandat jëlee ko 7 ans andi ko 5 loolu moo ne woon bi gën a fës ci référendum boobu mu yolleek waat dem conseil constitutionnel ne leen ak ah, sénégalais yi ne leen d'accord nañ pour ma wàññi sa mandat man bëgg naa ko wàññi waaye lu ngeen ci xalaat ñooñu it soba soba sob waane ba ne ko sénégalais liy wax. baaxut yow li nga wax baaxut sa mandat foog nga maintenir ko sept ans waaye ñun ñëpp xam nañ ni mu demee conseil constitutionnel moo leen di wax li ñuy def rek kon dialogue boobu fan la mujje ci wax waxeet ñaareelu dialogue bi mi ngi door 2019 jeex juillet 2021 moo wax ni dialogue boobu lan la ci lan moo ci soxla ko woon ci ay résultats bi ci njëkk mooy parrainage ñoom ñi bokk ci nguur gi lànk ne ñoom du ñu laal parrainage tey nee na day waxtaan parrainage dinaa la wax li tax mu wax ko ñaareel bi te loolu Union européenne Cour de justice de CEDEAO ñépp ne woon nañ ko parrainage bi baaxul jële ko mu lànk ne du ko fi jële ñaareel bi mooy li ñuy wax bulletin unique nga xam ne daf ñoo war a sakkanal bu baax suñu koom balaa ngay def téeméeri bulletin nga def benn bulletin rek boo xam ne kii ñëw day gis candidat bi ci kaw bi tegu bii tegu bi tegu mu seet ku ko intéressé mu xoos foofu daal di dugal ñoom ñu ne ñoo lànk waa pouvoir bi ñu ne léegi parti politique yi naka lañuy ñuy fan la ñuy jëlee seen alal ndax li ñuy bañ mooy ay nit jóge bitim réew di ñëw joxe xaalis wala ñuy luubal xaalisu réew mi pour dem defi politique mu am lu ñu waxtaanoon ba déggoo ko ci ni ñu war a doxalee loolu ba tey jii respecté wuñu ko. ñu ne it fichier électoral bi nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp xanaa kay bu ñu naree dem sëgg bëre maag yow war naa xam règle bëre bi lan la yow nga xam règle bëre bi lan mais su dee yow rek yaa xam règle man xaw ma bu ñu demee njaaxum kon ñu ne képp kuy parti politique ak mouvement citoyen société civile war ngaa mën a accéder au mu ne d'accord na ñu ne ko kon yaay jël décret bi war a tax ñi def loolu ba tey jii Macky Sall jëlul décret boobu 2019 ba léegi jëlul décret boobu nee na léegi nañ ñëw dialogue ñu ne léegi dañuy ut benn kuréel boo xam ne dafay am autonomie am indépendance am pour mun a organise élection yi parce que xam nañu Sénat ak li fa nekk ñoom ñu daal di lànk ne loolu du fi amee ñu ne ko léegi loi yi nga créé di topp opposants yi di leen tëj. ku yi sax nga dem tëj loi yooyu il ñu xoolaat ko parce que li mu mën na andi ci réew mi bëri na ci fitna mu lànk ne loolu mu ci laal ñu ne léegi pour jàmm am ci géewu politique bi il faut que euh, li nga xam ne moom la ñu dugal ci constitution bi deux mille dix deux mille dix te moom moo ko ci dugal mooy ku ñu condamné même su dee ñetti weer sax walla ñu def la amende bu ëpp trois cent mille su ma dootoo mun a nekk candidat loolu amul woon ba 2017 Macky Sall moo ko dugal fii ci réew mi mosut ñu ne ko lii mooy problème bi yëpp li nga bëgg a yóbbu assemblée naan amnistie ak yeneen ak yeneen lii lii moo ko gën nañu delloo si loi bi fu mu nekkoon avant 2017 te am na proposition de loi boo xam ne tey am na ay député yu ko déposé ci table assemblée nationale suñu bëggoon régler problème mu éligibilité yëpp fii lañ koy régler fii mu jeex tàkk.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 wala ci alkaati yi nga bokk force de défense de sécurité wala ci syndicat nga bokk wala kilifa diine nga doon